Bienvenue dans votre chaîne YouTube Top Info TV Sénégal. La chaîne qui est différente des autres chaînes. Top Info informé, éduqué. L'information juste et claire et sens aigu de la responsabilité. Notre credo. nam nekkuñu ci biir réew mi waaye seen taxawaay ci koom-koom gi lu am solo la ñoom doomu Sénégal yee yeewoo ca bitim réew ñu jàppee leen quinzième région du Sénégal ci jamono ji àdduna bi wërngal képp nekk ci crise réew yu bëri nekk ci confinement général kenn liggéeyatul tax ñu am jafe-jafe lool ngir mën a yóbbante seeni mbokk la ñu leen daan yóbbante état bu Sénégal nag nee ne fàttewul ay doomam dinañ leen bàyyi xel bu baax ci ndimbal li bitim kon ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew am nañu solo lool ci koom-koomu Sénégal moo tax président jëloon ndigal jëloon dogal jox ndigal ministère des affaires étrangères génne ci alal jooju fukki milliards ak euh, genn pour ñu dimbali ñooñu. ndimbal loolee du ñëpp kon ñoo ci mën a jotee Amadou Ba di jëw ju ñu dénk wàllu bitim réew di xamle ne képp ku ci nekk ci réew te réew moomee moo ngi lay taxawu mbir mi du yegg ci yow. situation boo xam ne réew ma nekk ma ngi xam ne yaa ngi ci situation boo xam ne la nga dese wala la nga yor ci alal mayu la nga jot ci lii doo ci jot ñi ñi nga xam ne président bëgg na ñu jot ci mooy étudiants yi nga xam ni amuñu bourse te doon def ay liggéey sew yoo xam ne mënatuñ ko ñi nga xam ne ñi ngi woon bitim réew nekk ci situation de vulnérabilité moo xam am nañu kayit wala amuñu kayit doon nekk ay commerçant yoo xam ni surtout vendeur à la sauvette nekkoon ci ci ci ci dëkk yi rawatina dëkk yu mag yi ñooñu nga xam ne tey mënuñoo génn mënuñoo dem fenn mënatuñuy dimbali seen njaboot gi ñu bàyyi senegal ñooñu la président jàpp ne war nañ leen dimbali fi ñu nekk. si lu soxal doomu Sénégal yi génn àdduna ca bitim réew seeni mbokk bëgg ñu indiwaat leen fii ci réew mi ministre des affaires étrangères di xamle ne jamono ji moom képp ko faatu ci woppi Covid 19 ji du la indi ci réew mi foofee la ñu lay toppatoo ba pare ku faatu nag ci beneen feebar mën nañu la indi su fekkee say mbokk sàkku nañ ko.